ñu ko defaree defe naan du defaru bone déedéet siñ sëñ maam Cheikh sama laaj bu njëkk mhm. est-ce que ñaan yàlla mën naa far dogalu yàlla ndax nit ñi da ñaan yàlla mooy dogal mhm. wala nga gis ku ni man gëmuma ñaan lu yàlla dogal noonu mhm. kon est-ce que ñaan yàlla mën na far dogalu yàlla waaw buur sa laaj bi am na solo te it xóot na lool ndax ñaan yàlla mën naa far dogalub yàlla <laughs> gis nga yén bi saa sallam daf daa wax nii adduhaa u laa yu la la laa yu qad laa yu qadrul qadri laa hmm. la adduhaa u laa yaruddul qadru daa di bi muy wax xadis boobu ci la waxaat ni laa yasidul laa yasidul umru ilal birri hmm. dafa mas a wax ci xadis ni dara mënta uh, dara mënta delloo uh, ab dogal lu dul ñaan yàlla hmm. daa di daa di daa di cay dolli ni nit ki bu bëggee gudd fan day fexe ba baax kon sax ba bala ñuy ñëw ci sa laaj boobu ngir di ko leeral dafa am solo doomu aadama yi baax doomu adama bu ne fexee taxoo baax baax nag nit moo koy defee boppam. baax bu ñu ko waxee mooy rafet rafetal sa jikko. Mhm. rafetal sa jëflanteeg sa digganteeg doomu aadama yi. Mhm. ku ñaawal jëme ci yow it nga rafetal jëme ci moom. Mhm. loolu la ñuy wax ak baax dafa am solo. bu ko defee ñu door a ñëw ci laaj bi nga laaj euh, adduhan u yu xayrul qadri ñaan dana soppi ab dogal dëgg la ku ne xam na ni nag yàlla fa kullu ma si lu dul jëmmam jëfama waaye bàyyil xel adduha min al qadri ñaan mi ngi bàyyi ci dogal mm-hmm. ñaan mi ngi bàyyi ci dogal euh, dogal nag dafa am ñaari façon dogal lu mat a bàyyi xel a noonu moom la boroom xam-xam yi naan fal qadru qadraani euh, dafa am dogal bu ñuy wax qadru maxtuum mm-hmm. laa xilata fii amul pexe pexe amu ci mm-hmm. moom la ñuy wax qadru maxtuum euh, moom doo gis ci alxuraan naan yamxullaahu maa yasaau wa yuthabitu wa hindu umul kitaab suñu borom day bind ci al yooyu lawxul mahfuz ci alliwaam ja mhm. loo xam ne du ko far mukk ak loo xam ne mën na koo far kon xam mhm. ñaari façon dogal am na mhm. benn dogal bi mooy bi nga xam ne pexe amu ci beneen dogal bi moom la ñuy wax xadrul muhallix moom la boroom xam-xam yi naan xadrul muhallix bu ñu ko waxee mooy dogal bu aju fu mu aju lu mat a laaj la ak lu koy ajji ak lu koy ajji lu ma laaj la. <laughs> yenn saa ñu ne sarax koy ajji. waaw kay laaj nga lu am solo. Ah. Euh, dogal bu aju moom lañ naan wa amal muhalliq fa huwa maa fi aydil malaa'ikati min as-suhufil maktub mooy loo xam dafay nekk ci loxol malaaka yi. Mm-hmm. loolu euh, fa izaa daha zaalal muhalliq nit ki bu ñaanee rek day daal di ajji ko. Mm-hmm. Mm-hmm. bu fekkee nag xad yakunu muhalliqan bu fekkee dafa dafa nekk xadrul muhalliq lu ma ta bàyyi noonu. fi mu ne léeg-léeg nit suñu borom nattu ko ci loo xam ni. bu ci sabab loo ñaanlu rek day daal di dañ ndax day fekk xadrul muhalliq la woon léeg-léeg nga gis nit itam di ñaan lu suba ak ngoon dem ci nitu yàlla boo xam ni waxuma la sax euh, Sénégal waaye àddina bépp nungu nañ euh, cëram ci suñu borom. Mm-hmm. dem sàkku fa dara te mënu koo am. dëgg la lu koy sabab bu boobaa dañ koy dugal ci xadrul xadrul maxtum. Mm-hmm. waaye xadrul muhalliq moom saa bu jaam bi jaaree fi mu war a jaar. day daal di am li mu bëgg moom lañ naan fa ida dahan zalal muhalliq xad yakunu muhalliqan mm-hmm. fekkee dafa nekk di di di yooyu nag du ñaan yàlla doo nga ko mën a dindi déedéet ndax laaj nga ko léegi nii ndax sarax mën na ko mhm. mbooleem jëf yu baax yépp nit mën na koo def yarfan wa anhu bima faala min ataati wal ahmali saaliha wa ba ni nga xamee ni ñaan mën na koo dindi nit ki mën na tuub tuub gu sell digganteem ak boromam suñ borom ñoddil ko njariñ yooyu yépp nit ki mën na jëf-jëf yu baax it suñ borom ñoddil ko njariñ yooyu yépp mhm. kon jëmmi dogal mi ngi bàyyi ko ci ñaan waaye ku ne xam na ni lay tax nga mën a la loolu la ci jiitu mooy xam xam ñaari dogal yi ban façon dogal la ndax bu dee xadrul euh, maaliq la ala kulli nit ki jafe-jafe yu mu ci mën a dund daa fekk awagut ci sabab bi rek saa bu awee ci sabab bi rek suñu borom dindil ko kiiraay li doxoon léegi mag loolu hmm? saa bu ci borom dindil ko ko ndax waati naa min kulli shay'in sababan fat baxa sababa hmm. moo tax dafa am solo ñaan kon weesu na am solo hmm. na moo moo tax yunus sallam daan wax nan fa yambaxi lil mu'mini an yukassira min ad-du'a yi dafa yell ci aji gëm ji muy baril di ñaan daat ni fa alaykum xibadullahi bidduhaa yi war na leen ngeen di ñaan lu tey ñaan yéen yéen jaam yàlla yi mm. daat ni ahjasu naas mën a ji saxani duhaa yi ki gën a doy di ci li yàlla bind mooy ki gën a doy dal ñaan mm-hmm. kon loolu du lu ñuy du lu wax pour bëgg nit ki di ñaan lu loolu njariñal doomu aadama la ci mm-hmm. dundu doomu aadama ci dundu mm. sëñ bi léegi dama lay ñëwal mm-hmm. ndaxte jamono dafa am fu mu toll te damay man ci wàllu tàggat yaram laa lay jëme danoo jëm ci làmb làmb joo xam ne Modou Lo ak Siteu ñoo koy bëree maam Cheikh gis ci jooju làmb mhm. waaw kay yàlla dafa def man nag eh, jëmmi làmb yi am yépp bëri na ci yoo xam ni duma koy xool ndax li koy sabab mooy jot gi duma ko am man duma def dara luñ sàkkuwut ci man loolu yàlla am ko bindee ah. bala maa def ni mbir rek day fekk nit sàkku ko ci man mhm. ndax man dama gis nga temps dafa am solo te man dama xam li ci temps mhm. fi mu ne moo tax benn boroom xam-xam waxoon ni nit ki nga xam ne jox na la temps mm, euh, temps ak jëmmam ak jikkoom. di mm-hmm. boole lépp di di la ci xalaatal. kooku bu ko yemalee kenn bu ko yemalee kenn. te moo tax Ibnul Qayyim daa wax naa idaaxatul waqti ashaddu min al mawti li anna idaaxatal waqti taqtaxuka an illaa wali daarul axira mm-hmm. wal mawtu taqtaxuka an dunya wa ahliha gis nga temps dafa riis. Mm-hmm. foo fekk ku koy perte ci lu yoon ci lu luñ ko dugalul rek. waa xamut xamut. lum réere biig loolu bu ñu ko waxee mooy <laughs> euh, foo fekk kuy dugg ci lu yoonam néew di ci wax rek moo loo xam ne laajuñ ko ca wala amu ca masalan nit ñëwut sàkku ci moom ñaan mu di ca wax kooku dafa amuk jot ndax bu amutoonuk jot am na leneen lu mu war a def lu bokkut ak loolu. lu bokkut ak loolu waaye li ma la mën a xamal daal mooy. muy muy mutloo muy. Siteu ku ci naagu rek mën nga koo ñàkk. loolu daal mooy wax. ku naagu daanu ku naagu rek mën nga koo ñàkk. ku xam nga doomu aadama. xam nga sëñ bi ku naagu daagu mm. loolu xam nañ ko. ci loolu loolu Babacar sax xam nga ko mais ah, ci contexte bi muy laajee. waaw mooy da gis ku ni diw moo jekku ca lamb ji. Mm-hmm. waaw wala diw kat ci bés ba est-ce mm-hmm. nit mm-hmm. mën na jekku ci ñaan yàlla. Mhm. ba téye ko. ba téye ko. dem ba à la dernière ci géew ba wala ci minute mujj mu ñàkk ko ak ci contexte la ko mën a ñàkkee ci sarax la ci couleur ci la. waaw kay laaj solo ndax nit mën na dem ba ci biir làmb ji. Mhm. ñaan ñoddil ko lu bari. ñaan ñaan dindiwaat loolu. waaw kay waaw kay lu am solo. Mhm. <laughs> loolu mën na ne ndax bàyyil xel ni euh, gis nga ñaan yàlla. ni nga xamee ni tey jii nit mën na ñëw ci bërëb. soppi ko ba mu taaru keneen ñëw soppiwaat bërëb ba nu mu gën a taaroo. Mhm. ndax dégg fi may waxee bu baax a baax. Mhm. ñaan yàlla mën na fekk ñaan yàlla ndax bàyyil xel ni keneen kiy ñaanaat kooku li muy ñaan fan la tollu diggam ak boroomam ci li muy ñaan. Mhm. moom miy ñaan it li muy ñaan lan la ndax di nga am na ñaan yoo xam ni du jëm suuf mukk. nit nag mën nga dem ci nit mu ñaanal la waaye loolu lépp day aju ci bàyyil xel ni jiitu na jiitu na la war a am jiitu na ko waaye fi mu ne kii masalan kii war daanu. lu dem ci koo xam ne euh, lu mu wax rek day daal di am ki war a daan moo cay dem waaye loolu itam bu boobaam mën na ñëw ca mujj ga ndax bàyyil xel ni ak mujj mooy lépp. kon sëñ doo dégg dellu si waat ci suñu bopp. waaw doo waaw doo dégg ñu naan euh, doomu aadama ñëpp di ñaan mujj gu rafet kon mujj ga moo am solo njëlbeen gi lii lépp du dara. kon maanaam ci géew ba moo am solo. waaw kay mbir ma foofa la. Mm-hmm. ndax kenn ku ci ne rek mujj ga ngay ngay ngay woo ngir ndam. fi mu ne mm-hmm. coow a fi am rek. wax ji wax ji rek a fi ne. waaye mujj ga moo tax fi mu ne mbooleem ñi koy seet li ma leen di dimbalee rek buñ ci boole ngir bëgg nit ñi di leen gis nañuy jiital xam-xam bala ñuy seet. Mm-hmm. maanaam bàyyi ba ca mujj ga ñu door a xool ndax mbir mën na dem ba ca mujj ga door a soppi soppiku. Mm-hmm. Mm-hmm. kon nit nit bul bëgg nit ñi di la gis ak bëgg nit ñi naan la yaay diw yaay diw loolu amul njariñ gis nga mbambug doomu aadama yi amul njariñ fexeel li ngay def nga teg ko ci xam-xam bu wérte te wóor. waaw xam naa ne dañuy gaaw tuuti barantu ak le dafa am benn phénomène bi xew muy phénomène u jaaru mhm. man gisaa ci TikTok bi jaaru trente mille mhm. gis naa jaaro cinquante mille mhm. te man li ma seetlu te amul seetlu bi ba nekkee gune mag ñi kilifa diine yi maanaam koo gis souvent dañuy gis ci ci baaraam bi jaaro aqiqa moom fonk nañ ko déglu naa boroom xam-xam ba Cheikh Mouhidine Samba jàll mu ne wallahi kuy takk jaaru du walaakaana mukk lan mooy particularité bi ndax jaaru jaaru Souleymane ba ñun xam nañ ne ak pouvoir am mbaak nguuram mhm. gaak ba ko jinnee jëlee mhm. est-ce que existence su jaaru yooyu ba tey am na waaw kay wax nga lu am solo eh, bi ngay tudd Cheikh Mouhidine Samba Diallo yéen ak suñu borom waaye ku baax ku baax ku baax ndeysaan yàlla na yàlla yokk leeral lool mhm. eh, eh, jaaro yaakaar naa ni lu amaam solo la ci ab jullit ndax boo delloo xam Souleymane eh, avant muy am jaaroom boobu ca jën wa ndax jaaro dafa bari fu mën a bàyyikoo koo jaaro nag bu ñu ko waxee eh, taxut xaalis bi taxut nuy wax waaye per bi ci biir xeer bi moo tax nuy wax day bàyyikoo ci ndund yi day bàyyi ci géej gi day bàyyi ko ci suuf si xeer yooyu bu dee xaqiiqa bi li ci ëpp yaman yaman la ëppee xeer boobu gis nga jaaro li lay xamal ni li ci li ci li ci li ñu ci wax léegi rek njariñ lim am mooy Souleymane avant muy am jaaro bi ak après bi mu ko amee. waaw moom la alquran naan yaa ayyuhan naasu allimnaa mantiqa tayri wa uutinaa min kulli shay'in mooy lépp dikkal na ko. suñ borom xamal ko sax njanaaw yi li ñuy li bu ñuy naaw li ñuy wax mm-hmm. ak buñ ko tiimee li ñuy wax mm-hmm. Mm-hmm. fa saxar naa loxoor riixa tajri bi am rii ruqaa suñ borom tàggatal ko ngelaw li wali suleymaana riixa quduwuha shahrun wa rawaawuha shahrun demoon ba nga xam ni moom ak ak xëyam xëyam daanaka boo ko doon def xëy ba jant so la masalan ak xëyam mooy am ngontom mm. dox dox doxu doxu xëy doxu doxu xëy ba jant so masalan doxu 24 heures moom mën na koo dox ci ci ci ci diir bu néew te loolu lépp lépp ko tàggataloon ni ko alxuraan waxee mooy jaaro boobu yi ginnaaw ginnaaw yàlla mm. moo tax ma wax la léegi ni la gis nga ñaan yàlla moo moom moo ëpp doole nit ki di xëyee ko gont loo mën a am ci àddina fa la ñaan mën a yóbbu mënoo faa yóbbu sa bopp mm. bañ ku bañ bañ bañ bañ ku la gàccal la mooy am jom liggéey koo gis mu di ko def rek day day bañ day bañ day bañ day bañ ku ku xeex dignitéem max mm. lan waaye mayewut dara sabab lu dafa am solo waaye mayewut dara mm. gis nga jaaro nag yaakaar naa bëri na ci yoo xam ne yonent bi salaam sax wax na ko ci waaw ndax nee na taxattamu bil xaqiqa fa innahu yan fal faqri mooy li nga wax léegi ni ku ko takk kenn du la yërëm mm. ku ko takk da ngay taqalikoog ñàkk rawatina nag muy bi nga war a takk ndax euh, bala ma ñëw sax ci leeral la loolu fi mu ne lu mel ni peru euh, peru peru peru fayruus hmm. jaaro boobu yi fi mu ne nit ki koy faral di takk bu dee nit la koo xam ne da am problème mu yàq di jàmbat ci médecins yi guddi ak bëccëg boo ko hmm. takkee suñu borom dala ciy dimbali hmm. per boobu rek bu fekkee nit ki daf koo takk bu dee ci problème yox daf koy faral di am. waaye doo jël jaarul takk ko dafa am connexion. waaw dafa am connexion. boo xam ne war a synchroniser. ak yow ci wàllu ilmul nujum waaw kay da koy mm-hmm. moom loolu lépp day aju ci. tabiha nit ki mun a ñàkk. Mm-hmm. ndax ah, tabiha dafa am solo. Mm-hmm. Euh, tabiha mooy orienté doomu aadama bi ni ngay def ba dimbali ko te yow doo sonn doo ko sonal. te itam yonent sallam mi mu ci wax na ni taxattamu bil xaqiqa fa innoo anjah lil amri wala yum naa ahaqu bi zina takk leen jaarul xaqiqa ndax bu ngeen ko takkee moo gën a yey ci yéen réussir gu gaaw a gaaw. Mm. ci seeni mbir lu mu mën a doon. te barke da ci am te xam nga ne loo am barke noppi nañ laa yërëm ci kaw suuf. Mm. te axaqu bi ziina taaru bi doomu aadama bëgg li ci gën a yey gën ci mooy jaaro. Mm. yamu ci mu ne taxattamoo bil xawaatimil xaqiq. takk leen jaaro xaqiqa. fa innahu laa yusibu ahadakum ghammun ma daama alayhi li fekk yaa ngi takk jaaro bi rek doo am njàqare. li fekk yaa ngi moom. njàqare du la jot mukk loolu ku dem ci kitaabu ahjaarul karim da ko fa fekk mm-hmm. ñëwaat na ci leneen muy jëmmi jaaro ci itam euh, wax na ni taxatamoo bil xaqiqa fa inna jibrilu ataani bihi min al jinna mm-hmm. wa qaala li yaa muhammad taxtim bil xaqiq wa umur ummataka anta taxtim bii digal ko sa xeet wi ñu di ko mm-hmm. takk kon jaarub xaqiqa njariñ yi ci ne nit munu ko takk nit munu ko xiyaas bëri na fu mën a dimbalee nit ki euh, li koy dëggal mooy jaaro la boo xam ni képp koo xam ni yàlla def na nga am ko da ngay xool li nga jot a passé ak li nga dëgmal comme yàlla ak yàlli mm, mm, mm. loolooy njariñal jaaro yàlla nag dafa def àddina suñ borom kum nu mut a dimbali du la orienté fa njariñ ne mm-hmm. sa xel sax du fa dox jëm loolu mbirum yàlla du mbirum mm-hmm. jaam bu ñuy wax tey ci mbirum ci mbirum seet mm-hmm. euh, dama gëm ni man ilmu nujum mooy bi ci gën a pratique ndax yàlla yu ci bari ci weer wi lay wax wa samaay wa taarix al ataaka xadiisu junuudu mu day wax ci weer wi. wa samsu wadduha ci bidéew bi. Mhm. ci bidéew bi ci jant bi. Mhm. te ilmu la jóg. mooy seet kon bi gën a pratique parce que yàlla misaal nañu ko ci junub yi. Mhm. ak ci bidéew yi ak ci weer wi ak ci jant bi. waawaa ñëw na ci alquran ni nga xamee ne alquran ni ma waxee ni inna xiddata shuhuri hindala isna ashara sahran suñu borom dañoo indil weer wi muy fukki weer ak ñaar. ni nga xamee ni li temps la moo xadara sinina daf ñu koo xamal ngir ñu di ci natt di ci xam li mu at yi di xam dund gi ni ñu koy programmé lépp suñ borom dañ koo organisé démb tey door a ñëw hmm. huwa allazi jaxala shamsa diyaan wal qamara nuuran jëmmi biddiw nag mooy tegtalu bi gën a wóor te gën a wér ndax alquran dafa wax ni wa alaamatin wa bin najmi hum yahtaduuna biddiw yi mandarga la woo xam ni dañ ciy gindikoo hmm. fi mu ne nit ki mënoo li may wax waxtu wu ne saa boo gisee ni nit ñi day dimbali nit ci wàllu ñaan yàlla bëgg koo dimbali te xoolut ay mbiram dana sonal boppam dana sonal ki muy ñaanal ndax ñaan ndax ñaan yàlla dafa am bàngaas bu ca jiitu mooy njàqari nit ki bu doon am néega seet mooy bunt ba mm. wa aatul buyuuta min abwaabihaa mi ngi mel ni ñuy dugg ci sëy yi mm. te seetuñ ko dem ba ca biir jafe-jafe yu ëpp seen bopp di leen ci dikkal mm. démb rek benn femme ñëw na ci ñëw na ñëw na fi man li ma wax ni ma daanaka bañ ko bañ ko bañ ko bañ ko bañ ko euh, euh, wàcceeg léegi yàgg na nga xam ni jafe-jafe yi bari na bari goo xam ni li koy sabab lu ci bari ñàkk xool la ak topp sa bëgg-bëgg mhm. sëy nit du ci topp bëgg-bëggam lu leer laa la wax mhm. sëy nit du la neex rek nga dem dugg diw laa nopp xale bi dafa rafet rek mhm. sama ñaari kilifa yi ànd nañ ca rek dem du loolu de waaw ma ngi de daawuñu lan la duggee noonu si dañ koy xool waaw masalan du caaginu da nga bëgg nit rek da ngay dem sëy ak moom de du caaginu kooku bëgg nit rek da ngay dem sëy ak moom de hmm? déedéet sëy li yonent saa salaam doon wax rek yaqulu innama suum fi salaasatil farasi wal mara awid daar dafa am ñett yoo xam ne gaaf la bi ci jiitu soxna daf cee bokk boo ci toppee sa bëgg mën ngaa toroxal sa bopp. Mhm. kër daf cee bokk boo ci toppee sa bëgg mën ngaa toroxal sa bopp. Mhm. ndax dégg nga li may wax bu baax a baax. bu baax jëmmi jëmmi daamar it daf cee bokk boo ci toppee sa bëgg daamar nag bàyyil xel ni du oto kese ak fas sax ci la lépp loo xam day am ñeenti tànk rek nit di ci war. mu di la mu di la doxal say mébét rek. ci biir warukaay nekk rek warukaay gu nekk la gu nekk rek la ci biir. Mhm. yooyu yëpp daf cee bokk. kon yooyu yëpp nit mënu koo mun mënut dem bàyyi ko bàyyi ko ginnaaw loolu mun a. déedéet mënut a ne kon nit ki suñu borom da koo dimbali ba noppi ba ba noppi soññee ci ndimbal ndax yàlla bu demee ba naan bu ngeen dimbalantee di ngeen ma dimbali te wóor nañ la yàlla ajowul ndimbal te lépp ajowo jëm fa moom ndax lu dul jëmam jëfama waaw waaye soxna si nga xamante ni moom dafa bëgg day sëy di mhm. di ku baax nag mhm. mais yàlla dogal sëy bu mu am rek macha allah daal bu mhm. tas kooku lu war a doonub gàllaajam waaw kay laaj nga lu am solo wala boo ci am ndax am nga ci pexe waaw kay yaa xeet yooyu yëpp pexe am na ci pexe am na ci ndax euh, bari na ci ñoo xam ni fu ñu dem rek dañ fay daal di jóge te loolu euh, ku góor ku jigéen kenn bugg ko ñaan yàlla. Mm-hmm. kenn ku ne ñaan nga yàlla foo dem rek euh, faatu fekk la fa. waaye sabab yi koy waral dafa bari nit ki mën na ànd ak rab boo xam ni bari na ci xeet yoo xam ni boo ko takkee ci xeeti doomu adama yi dañuy fees dell ak rab. Mm-hmm. te rab moom li ma daa wax rek qaala qaa'ilun minhum inni kaana li qarin àndaale la boo xam ni ku ne na ko. lii tax mu mën a dimbali nit ki nag mooy nit ki waxtu wu ne muy xam saraxam di ko def di ci dimbali boppam bu ko deful rek muy ko jigéen ki jafe-jafe yu baree bari mën na koo jur après masalan mën nga dem fii lu lu sew a sew tàqale leen am na ci yooyu nag bàyyil xel ni nit jigéen gi mën na topp bëgg-bëggam fekk ci du rab yooyu yëpp mhm. waaye dafa topp bëgg-bëggam rek mhm. dem di sëy sëy koo xam ne xoolu ko ba xam gën na ci wala gënu ci gën na ci moom wala gënu ndax leeral naa la léegi ni la mhm. yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf koo jàngale am na ñu naan aada la te du aada sax sunna la aada mooy loo xam ni ginnaaw ali sa ginnaaw ali salaatu wasalaam la loolu du aada sunna la mm-hmm. Mm-hmm. loolu du aada sunna la du aada non du aada sunna la nit ki dafa war a lépp lu muy dugg euh, xool ko listixaar lu ko listixaar yunus salaam da ko daa def daa ko digle waaw sëñ bi bu dee da ngaa am jigéen joo xam ne moom da nga koo bëgg mm-hmm. macha allah nga bëgg ko am jikko yow seet ci moom xëy ñu seet loola ko nga seet ko ñu ne baaxul ci yow da nga ko war a bàyyi wala noo war non faj yi dafa ami façon masalan bu fekkee xam nga baax ñàkk baax gi dafa bëri façon bu dee ci tawat la mën naa am jamono bi nga koy bëgg dafa fekk mu tawat mën naa am jamono bi nga koy bëgg dara jotu ko waaye seen tabiix moo dëppoowut mhm. ñaari façon yooyu yëpp daf ci am bu dee tabiix yi dëppoowut lu mel ni mm, naar yu naar yu la kii di maa yu boobaa jafe-jafe day daal di am nee ko ba ko ndax loolu li gën ci moom <laughs> adduna nit ku ne jàmm yaa koy may sa bopp mhm. lay sonal bu ko def am na loo xam ne bu gënut ci rek baal bu fekkee nag mbirum euh, feebar la feebar buñ mënta faj amut ndax li kulli daayin dawaa la yonent sa la mu wax jàngoro boo gis rek la koy faj la suñu borom njëkk a wàcce te itam bàyyil xel ni amul benn jàngoro boo xam ni dana dal nit nit ki jàpp ni lii rek moom gàllankoor la déedéet feebar du gàllankoor ndax laysa ahadun mahsuman min al marid amul kuy dund ku mucc ci tawat mm-hmm. tawat ñëpp ñëpp amul kenn kenn kuy dund koo xam ni da nga mucc ci tawat mm-hmm. ñëpp ñëppay tawat moom ñëw mm-hmm. mën nañoo topp seeni bëgg-bëgg ba dugg ci boobaa jafe-jafe day daal di am. Mhm. waaye ab ànd daal moom li ci tane boo leen ko xoolee ba mu dëppoo li ñu naan nopp daf ci am solo. Mhm. daf ci am solo trop. waaw dëkkal maanaam dëppale ñaari xol. waa boole ñaari xol. ba mu doon benn mais est que tamit euh, wàllu ñàkk dagan ak daggan du ci engagé wu. dagan ak ñàkk dagan comme mooy di nga gis ne ku ñëw na la sëriñ bi mhm. xale bu jigéen bi kat dama ko bëgg mhm. damaa bëggoon nga noobal ma ko mhm. te fekk na xale bu jigéen ba bëggul woon waaw kay laaj nga lu am solo foofu daal euh, gis nga noob bala koo nit kee sañ a def day fekk ki muy noob mu am yéene takk kooku wala ku jigéen ki itam am yéene sëy kooku ñoom ñaar ñëpp ñu am yéene jaamu yàlla wala muy loo xam ni itam ñaar ñu dencante la ba noppi jafe-jafe am seen diggante mhm. ndax am na ñoo xam ne itam dañuy toog rek ni mbir yi moom seen mbir yi boppa lu yàlla dogal rek noonu la fekk loolu yàlla lor sa bopp bàyyil xel ni jëmmi tàqale ab diggante loolu alxuraan sax daf ko tudd hmm, comme sa doom di bëgg koo xam ne wóorale kii gënul ci moom waaw kay gis nga nopp dafa am nopp dafa am fi am na xam am na uh, mag ñi xam-xam bu ñu daa def boo xam ne ci nopp du ak 24 heures boo xam ni euh, duñ ko defal nag ku amut borom kër boobu nopp boobu. Mhm. loolu li ma lay wax nii lu wér a wér la loo xam ni dara du ko dindi. bis musuma koo defal nit mu jege woon quatre heures mas naa koo def loo xam ne nag yàggoon na koo xam ni ab tubaab la yaakaar naa jamono boobu sax maa ngi jàng. Mm. <laughs> maa ngi ci bërëb bay jàng. bi ma ko ko ba noppi daf maa woowaat ni ma xanaa mënoo ñëw tàqale. <laughs> mag ndax da caa mujj sonn. da caa mujj sonn. 24 mm. heures kay du àgg damay wax ni loolu xam-xam la boo xam ni. giñ naa ci suñu boroom ni dara du ko dindi te soxlawu maa xam turu ko góor ki ak ku jigéen ki moo tax leeral naa la ni la ci wàllu noob ci wàllu noob leeral naa la ci biir wax ni la day aju ci ñoom ñaar ñëpp dañuy dañuy kii nu mu tuddati mais waaye nag yenn saa yi ku góor ki wala mhm. ku jigéen ki moo bëgg sëy ak euh, buur Mm-hmm. ku jigéen ki bëgg a sëy ak buur. Mm-hmm. Ah, bëgg ñëw si yow man gaare naa de gaare naa de ah. <laughs> neel mu bëgg a sëy sàppali. <laughs> mu ñëw ni la. Mm-hmm. man ka ndaw si dama koo sopp te damaa kaa bëgg damaa nga noobal ma. ma ko waaw bu boobaa ku jigéen ki moom yoonam newu ci yëgul tinul so bëggul. kooku mën ngaa fexe ba. ku jigéen ki nangu. waaw laaj nga lu am solo. loolu ndax mënees naa fexe ba ku jigéen ki nopp gis nga nopp mooy li ma la wax léegi rek dafa am façon mu dee boobu noonu nga xam ni ñaar ñi way dencante la bañ nañ ko ba xam-xam bi bañ ko daa jox jëkkër ak jabar ju am problème ko taxoon a jóg. 24 mhm. heures laa la wax seenu problème féete boor. ñu ñu juboo 24 heures du ko mat. loolu ba ma ko dalee def ak léegi yàgg na de boobu maa ngi jàng xam-xam boobu nit joxe na ma ci lu ne ci àddina. Hmm? lu ne loo xalaat xam-xam la di. xam-xam la kay. <laughs> te. tàggale bi it yomb na ci yow. dëddale waaw. laa ilaha wala dëndale dëndalee moo gën a moo gën a yomb wala moo gën a kii non non xam-xam bu amee bu jafe rek ci nit kooku xamut la muy wax la muy def nit loo xam rek mënut a jafe ci yow hmm. dëndalee ni ma ko manee noonu laa mënee nopp waaye dëddale itam léeg-léeg nga dégg ñu naan di tu nga tudd baat bi rek nit ñi ay loolu yéen a ci yàlla musal. waaw waaw waaye bàyyil xel ni. am na ñu ko dul nangoo def paaka. Hmm. ku ne xam na ni day lore. waaye am na fu mu amee la njariñ doomu aadama. waaw waaw waaw. nit lenn lu ci ne rek dafa am fu mu amee njariñ. gis nga li nga laaj sànq ma ñëw ci leeral la ko tuuti muy euh, fekk koo xam ni bëggut nga fexe ba mu bëgg loolu am na. waaw gis nga doomu aadama bàyyil xel ni jëmmi doomu aadama nii amul solo gis nga ni man damay wax ni nit bala mu maa xam dëgg rek mu jëflanteeg man ndax nit mënoo koo xam ci nii nit faaw nga jëflanteeg moom door xam mooy kan. door a xam mooy kan. door a xam mooy kan. moo tax benn borom xam-xam dañ wax naan laay joosu bi ma takfir la la laa tax la bi ma la laay joosu laa tax la mu bi ma bi ma takfir nit wërta wërta wërta weddi laay joosu laa takfir bi ma laa tax la mu wërta weddi loo xam ne xamu ko xamu ko waaw moo tax ñu ni laay joosu laa fiir bi ma la tax bi ma laa tax la mu nit warta weddi loo xam ne xamu ko mm-hmm. waaye nit bala mu maa xam dëgg faaw mu jëflanteeg man li may wax nii daanaka bari na ci ñoo xam ni ñi ma jot a jëflanteel xam nañ ko ñi ma ñi ma ci jot a dimbali itam xam nañ ko xam gu wér mm-hmm. waaye li ci ëpp solo mooy nopp moom yaakaar naa ni képp koo xam ni am nga ci jafe-jafe. waaw yaakaar naa ni bis boo fi ñëwee soxal dana sedd. te di nga di di nga tàqali koog naqar. maam Cheikh am na nu mbégte. walaay ñoo ëpp mbégte waaw xam-xam génn na. ñoo ëpp mbégte waaw parce que xam-xam dafa am solo torop ci doomi aadama wallaahi wallaahi wallaahi te yàlla yemalewul. wallaahi dëgg yàlla ni baaraam yi wuute. dëgg la xam-xam yi wuute waaye tey vraiment waxtaan wi waxtaan wi yëpp xam-xam la. wallaay ndeysaan wallaay yàlla moom. sëriñ maam Cheikh a ngi noonu képp ku ko ah. soxla rek mm-hmm. ah lépp loo xam ne soxla nga ko ci wàllu ñaan mën nga ko woo ci 77 641 08 85. 500 541 08 85 wala 78 451 74 quarante mhm. loolu mooy ay numéro téléphone am mi ngi noonu affiché ci télévision bi yéen ñi nuy seetaan ci YouTube bi it boo ko dee xool caractère bi dina xaw a tuuti waaye boo ko xëccee rek. Mhm. dina ubbeeku bu baax a baax. Mhm, mhm. ñu koy gërëm bu baax di ko ñaanal yàlla yokk taxawaayam yokk mën-mënam xam naa ñu koy joxaat yeneen i ndaje. incha allah rendez-vous bu soobee yàlla jërëjëf bu baax yow jërëjëf jërëjëf kàddu yi rafet na. Mhm. Pape ñu xool tuuti ci programme bi ci parce que tey mbokk yi et dinañ waxtaane Modou Lo ak Siteu. dinañu waxtaane rëg-rëg moom la nuy xaar. mu ànd ak léyti léyti moo ànd ak rëg-rëg ca mbappat la ko jàppale lu traditionnel ba fii rëg-rëg yegg si nekk champion du monde tey jii dinañ waxtaan ak rëg-rëg ci surtout digganteem ak Boy Niang mu ni mm. combat bu am solo combat bii moo fi dox ci diggante bi mm. waaye bu ñu génnee ci combat bi combat boobu bu soobee yàlla dinañ ci def ay plateau yu bari waxtaan ci ci diggante rëg-rëg ak Boy Niang qualité yi défo yi lépp loo xam dina tax combat boobu te it ñu ngi koy waajal di ko yóbbu bitim réew pour def ci face to face te loolu lépp mooy wane ni làmb bi mu ngi gën di développer dinañ waxtaan ak rëg ci MMA dinañ waxtaan ak moom ci yu bari ñu am lu nu seetaan avec notre réalisateur Pape Modou ñu dellu waat léegi. <laughs> primo date giù. yow bu lamb saajee mbër ba waaf ca géew ga wane fa doole am na fula jom ak seng-seng ba fu mu dugg wane fa manoore